jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalati leen ak jàmm ba tey rek la see gën a fees mën na rek des koy doo rek Euh, conseil de ministre bi nga xamante ne si na daati nay am dem kooku di njiitum réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daati amal lu mel noonu mel na nag ba tey daa nag rel gi jëm si wàllu administration ba daas nat fay nemmeeku ay coppite ay gouverneur ak préfet xamante ne si na nemmeeku noonu na fay ay changement ak ay toxal ak ay indiwaat ñeneen mu doon lu xamante ne si na ba tey euh, jëm si wàllum administration bi daal nag si déemu daan nay xaw a yëngu lool jëm si ay changement ak ay déplacement yu xamante ne si na daat na parce fay euh, gis mu doon sa conseil de ministre boobu ba tey sa conseil de ministre boobee man nan na rek daan nan fay nemmeeku tamit ay nomination yu xamante ne si ne daan na ko fay gis ay PCA moom kookee rek di président bi dafa lu mel noonu si ñi xamante ne si ne ñun ñu ràññee leen xàmmee loon lool si réew mi mu doon kookee xamante ne si ne moo di Mortalla Gueye nit ko ki nga xamante ne si ne moom la ñuy woowee euh, kilifa mu doon nag ñoo xamante ne si ne yaakaar na askan wi kenn dootu leen laajte kenn dootu leen euh, Euh, soxlaa xam ndaxte nag euh, ñun xàmmee lan ñun ràññee lan ndaxte nag euh, daan nañ xeex bu baax a baax jëm rek si gouverneur réew mi fii nekkoon mu doon nag ñi fi jiite woon réew mi ñoom saa su ne rek dañ daan di génn ba tax na rek te doon nañ si sax mën nañ ne ay kaso yoon yoon ba tax rek ñoom sonnoon nañ loolu si xeex bi ba tax rek démb ñu ne am na nomination yoo xamante ne si ne ay ndombal tànk daan na leen si takkal mu doon euh, PCA xamante ne si rek moom kooku di Mor euh, Talla Gueye takkal nas kooku ak ki xamante ne si rek moo di euh, kilifa moo nekk rek président bi nga xamante ne si ne moo di Kumaros foofee moom kooku di kilifa daat kiy jiite mu doon ay mbir xamante ne si ne rek daan nas si koy nemmeeku démb si conseil de ministre bi nga xamante ne si ne amal nas fa mun a ne ay yeneeni i nomination xamante ne si ne yu bees peq la tan gën saa ràññee ñi nga xamante ne si na moo di ñi nga xamante ne si ne mën na na sax ay activiste wala leneen lan leen doon woowee ñoo xamante ne si la rek daan nañu taxaw ak di xeex bu baax a baax ñeel nguur gi fi nekkoon pour rek mu daat fii jóge ndax jàppoon na na rek teguloon mbir mi si yoon ba tax na saa su ñu daan génn di si àddu ak di si wax ba tax na rek jamono ji ñu daan leen ni nommé ñu fës kenn liggéey bokk si gouvernement bu bees bi daal di amalu ko liggéey ñeel rek li xamante ne si ne moo di askanu Sénégal ndax ñu daal si mën a gis seen bopp mu doon mbir mu xamante ne si ne ñu si bëri bëri si patriote yi daas na si kay rafetlu si yooyu la ay nomination